asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñi ngi am mbégte mu rëy ak bànneex ak contentement ci ñëw fii ci sunu këru xarit di sunu rakk di sunu wëlëre di jëmm joo xam ne dañuy yëg sunu bopp ci moom ndax cofeel guñ koo dencal cofeel gi nag rëy na lool dañuy wax dama mën a wax ne inna sawqa alayhi tamlakani wastan wasan alayya fa asbaxa yataxakkamu fi simaami tafkiri waaye mahma atalal xaxdu baynana wa atalal masaafatu baynana fa man silituhu fi xalbi laa yemahu nisyan kon kooku sori naa ci moom wax ne cofeel gi ma ko nëbbal dafa maa mujj di ma ndir def ma sooke boo xam ni domine ma ci wàll gépp waaye loolu lépp nag jikkoom ju la ak ko mbaaxam ñu cof ko ci collègue gi doxoon suñu diggante ay waajur muy muy muy sëñ Abdou Lahad ak sëñ Abdou Khadre yàlla da leen a boole woon bokk ba noppi boole leen ab liggéey mu mel ni dama koy waxee toujours Cheikh Bass dafa ñëw ngir mot li yéene sëñ Abdou Khadir ndax sëñ Abdou Khadir dafa ñëwoon dafa nekkoon sëñ Touba xilaafa ga gàtt bu seex ñëwee tam ñu ràng ko lii tamit ndaw tam doxal ko doxan wu rafet kon sëñ bee ko roof loola rek ki jàpp hmm? kon nag ñu ngi ñaal ko ci barke fu ko raw taram jox lool ndax makaarimul axlaax jikko ju rafet ak jikko ju baax yàlla dimbali na ko ci dama gis toujours nit ñi li ñuy nit ki ki nga raw te mun laa jot ci mi rek la lay daboo loo am mu ne nanga ma tax mbaam ko loo def mu ne nanga tax tax tax mu def ko waaye ku bokk ci Sëñ Tuubaa te ci